jëlee yóbbu ko ci loo xam ne nag jëm ne ci wàllu yoon waaye lépp loo xam ne itam jëm ne ci lépp premier ministre boobee nga xam ne dañu ko bëgg a neenal ci réewum Sénégal Mamour Sy di yëkkati kàddu daal yi xam daal bu ñu ko defee daal primature ñu daal di koy neenal loolee mbir moo xam ne daal ci réewum Sénégal daal moom ñu taxaw waaye itam am na ñoo xam ne nag na ñoo xam ne nag ñàkk pexe la ñu nekk daal dañoo bàyyee woon feneen maanaam transhumant yi nga xam ne daal ay fokon la ñu leen tuddee am na ci ñu bëri ñoo xam ne tàqalikoo naan ñoom l'observateur dikkaat ci gouvernement boobee nga xam ne nag moom la doon taxawal ak yeexte nga xam ne daal am na yéen bi dañu xamal ki nga xam ne daal mooy Amadou Ba moom mi nga xam ne nag moo jiite woon économie ak finance moom bokk na ci li nga xam ne daal moo gën a yàggal mbir yooyu ndax poste bi nga xam ne daal moom la ko jox Macky am na koo xam ne daal diggoon na ko ba noppi ngir fas yéene jox waaye Amadou Ba liggéey am solo yi nga xam ne daal def na ko ci poste boobee nga xam ne dénkoon nañ ko ko muy économie neenal ci loolee bokk na ci dëkk bu sell bii di Touba ja jamono jojee source nag yëkkati kàddu daal daal di koy jëmale ci ki nga xam ne nag yëkkati na ko dafay xam ne ne juróomi at yi nga xam ne daal moo de sama gisaal ci nguuru Sénégal

seen liggéey boobee daanaka dara amuñu ko ci a tax na nag jamono ji ñu daal di sàkku ci kilifa yi nga xam ne daal ñoo jiite réewum Sénégal ñu daal di ciy jëli dogal lu daane la ko làmb sunu làmb di nga xam ne kay Pape Thiali Faye jamono ji nag mi nga xam ne nag diggante Ama Baldé ak Tapha Tine des 52 ak Gris Bordeaux te ak Papa Sow